di wax auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi sant sumay ñaari waajur maa leen nuyu bu baax waaw di nuyu sa caméraman di nuyu waa Ngor gépp di nuyu waa àdduna di saakuwaat ñaan rek di talaat suñuy loxo àdduna di talaat suñuy loxo waa Ngor di wax ne nañu ñaanal dimanche yàggatul waaw waa ngaa sàkku ñaan ndax damaa xam ne pôle bu daaw bi nga jël man damaa xamul lan moo dugal ci pôle bu daaw balaa dara di xew parce que mu juumul bi ngay mujj fee ca arène nationale sa digganteeg yaag euh, Koña la woon combat boo xamante ni boo ñëpp ñu ci bëri dañ ne woon tey ki nga xamante ni mooy Xewu Ngor amul droit def yàlla dogal na bi nga bëree ni nga am ne combat bi baax na ba nga am ca ba nga am ca victoire mais nga jóge fa jël pôle bu daaru lan moo dugal ci pôle. waaw suñu yoonu làmb la rek. parce que amaana tey bu fekkonte ne defuma fi loo xamante ne war naa mën a bëree ak man moom it defu fi loo xamante ne war nañ mën a bëree yaakaar naa promoteur du jël xaalisam du ñu ko fay. Mm. yee kon làmb moo ñu boole ñu nekk ay naataango mu nekk combat xamante ne combat déclenchement la. waaw ñu doon ay choc de na taxaw yàlla dogal mujjewul antu kon bu taxawaatee kon dañoo bokk yoon. waaw te ñaar ñu bokk yoon il faut ñu daje pour xaajali ko. bi bi bi mu njëkkee taxaw kañ la woon waaw. ba léegi yéen ngi toppante ki jaar nii jaar ni ngeen dajawaat. waaw làmb mooy def loolu kon loolu day wane dañoo bokk yoon rek war a bëre te incha allah dimanche dinañ bëri ñu xaajali ko ma defal ko ñu dem. mbokk yi ma fàttali leen ko mu ngi ci quinze combats bi mooy 16e moom mu ngi ci 11 victoire ak 4 défaites. bi nag moo nekk seizième victoire mais nee na c'est c'est kii douze douze douze victoire lay nekk xaw ma nag moom fan la ko teg xaw ma luñ ko déy la wala nu mu demee noonu wàllum entraînement yi parce que ku ci nekk gis na ni ba wala boog man boog gis naa euh, li ngay daj ci entraînement gis naa niveau bi nga yóbbu sa bopp lan moo waral nga dem ba olympique di fa entraîner. waaw loolu dama si nuyuwaale au passage sama papa muy docteur ñaa borom suma assistance mooy sama sponsor sama lépp moom moo ma jël en charge fayal ma foofu. ma fay entraîner xam nga loolu yëpp ngir bëgg ma def ay performance yu baax rek parce que yaakaar naa athlète fi ñu toll nii dafa laaj ay moyens quoi te làmb dafa metti donc bu fekkente da nga bëgg nekk dans une très bonne condition il faut koo xamante ne day nekk sa ginnaaw di la jàppale. te yàlla suturaal ñu docteur ñaa nekk suñu ginnaaw du jàppale moom moo ñu yóbbu foofu ndax bu doon ñun rek ak suñu moyen mënuñu faa dem. waaw mais nag yàlla dogal na moom mu nekk suñu ginnaaw yóbbu ñu foofu noonu. kon dañuy ñaan yàlla rek li ma yóotu li mu li mu bëgg si ñun mu tàmbali rek incha allah Mm-hmm. Uh, seen équipe olympique de Ngor la de. waaw olympique de Ngor waaw. defe naa yaay tête de bi booy am na ci booy yoo xam te jot nañoo génn Siteu bu Ngor génn na am def am victoire fëgg génn am defet nga ñëw génnaat naka nga na waaje bés bi ànd ak waa Ngor parce que waa Ngor tamit uh, lu leen waaye mën a waxal waxal waxal xam na bu ñuy dem dañuy mobili bu ñu bu ñu bu ñu jëm ci làmb dañuy mobiliser dañuy wane seen bopp naka ngay waaje ak waa Ngor. waaw bés yi moom man li ma ci mën a wax mooy man bëri laa sasoo parce que tey li nga xamante ne moo jëm si wàllu mobilisation bi loolu waa dëkk bi ñoom ñoo ko gérer. li nga xamante ne moo jëm si wàllu leneen ak leneen ñoom ñoo ko gérer man bëri rek lañ ma sas ak daan te incha allahu rabbi dinaa bëri dinaa daan si kàttanu yàlla dimanche. xam nga Paul. Paul xam naa ko xamul làmb rek parce que mbër moom maanaam làmb ngeen see xamul làmb nga koy soxlaa xam man xamul làmb laa ko soxlaa xam te xam naa ko xamul làmb li ma soxlaa xam ci moom waa xam naa ne ndaanaan la sampion la mais ndaanaan boo gis ndaanaan la koy wàcceel lan nga xam ci moom xamul làmb parce que man tamit bu dee bu dee bu dee ñetti combat ba ñeent sax seetaan naa ko ci moom xam na xam naa njàmbaa gi ci moom mën a bëre bi ci moom am fit bi ci moom te moom moom moom foo mën a taxaw moom dala fay fekk moom xeex gi moom bu yeboo nga waaj ko moom. waaw kon alhamdulilah rabil alamin man de wax dëgg na yàlla man moom ki may jaaxal mooy mbër mi nga xamante ne yow maanaam doo def dara lépp dañ la koy defal mais mbër moo xamante ne da ngay def see moom kooku day neex a bëral parce que man damay def see bu dee def see may def see kon yaakaar naa amateur dañuy kontaan jël bi day gaaw. non moom bu def see de dina dina gis lu ko lu ko bett de. parce que jàpp jàpp naa ne làmb ba léegi xamaguñ kan mooy xeeru ci wàllu bëre. le géant di 4V. wallaahi kan mooy xeeru ngor ci bëre du caaxaan de man dama mën a bëre. amaana nag gars yi xamaguñ ko te de jour à jour dinañ ko xam. mais nag mais nag nga def nga def nga def quinze combats ba léegi gars yi mënaguñ xam sa mën a bëgg kañ lañ koy xam. waaw parce que xeex bi moo gën a feeñ. gaa yi xeex lañ lañ may jël di ma yóbbu côté xeex naan xeeru ngor xeex mooy atome. moom est-ce que du yaa sa bopp. non loin de là xam nga tey bëre dóor boo nekkee xale ñu tàggat la xam nga tey comme niñ koy dañuy jël benn exemple rek si football. Mhm. da ngay gis attaquant mu mën ñoom te sax nag dugal lañ soxla. waaw exemple am nañu te mën a dugal dañoo a Benzema dafa mën a a dugal. Mhm. na ñoom te ne am na loolu mooy loolu mooy différence ak ñoom man noonu la ma yàlla dogal ma mel si làmb damaa mën a xeex mën a bëre loolu yàlla moo koy jël may ko nit don la. mais est-ce sa mën a xeex dina feeñ sa diggante ak Paul bu Daaru. Paul bu Daaru incha allahu rabbi taxaw xeex ak moom. incha allahu rabbi li làmb ji laaj pour ma daan ko. non waxuma loolu dama ne est-ce que yow laa la wax xew ñëw nga taxaw xeex ak Paul laa wax xam nga ku bëre quinze combats xeex combat yëpp boo toogee nekk ndax ñeme ngaa xeex ak kii lool noonu man du ma si tontu. est-ce que xam nga ne des fois a mu rëy ko wala mu tëlee ko. man day bu dee bu dee ne fit mooy tax ma koy tëlee xam naa ne kon bakar may bàyyi làmb du ma ko tëlee parce que objet boobu di tiital nit laa amul. maa sa pour ma tax wax doomu aadama loolu bu ma ko defee sax weddi yàlla yàlla rek laa war a ragal kon su ma tiitee doomu aadama mën naa weddi Paul awma lu may xalaat ci moom pour di ko ragal wala di xalaatuma loolu sax dama koy jox cër nag bi mu am parce que champion daanaan la. suuf mais adversaire yi jàkkaarloog ñoom ñenn ñenn ñi laa wax est-ce que jàkkaarloog ñoom war mën jox cër ci ci biir géew. waaw mais xamal làmb tamit ku dem waajal ànd ak ay mbokkam ak nu mu mënta ko toll da nga koy jox cër parce que làmb soo ko joxul cër rek mu war la te man ñi ma daan ñëpp kenn daanuma parce que yaa man dañ maa daan parce dama leen ñàkk jox cër. Mhm, waaw benn rek mën benn man naa wax benn sa diggante ak Boy Diop. waaw yéen ak yeneen ñoo xamante ne dañ maa daan parce que joxuma leen cër. Mhm. kon dafa yelloo pour ma jox ñëpp cër ñu may bëree parce que may bëre ëpp ñu ma doole daa ko maa xeex daa ko ñu maa ñu la jàppale. waaw léegi ma bëgg leen di leen manqué de cër bañ may daan loolu day dañ. damaa màgg si làmb léegi ku xool sama combat passé nga xam ne xeeru ngor maa gën a nekkatuma xeeru ngor bi doon ñëw def yi fu dof de. mais nag mais nag mais nag combat bi passé xaw ce que tamit amateur yi du leen xaw a que boo taxawee di lewaatu wàcc say tànk mu taxaw di la xaar est-ce que du ngeen fa guddeel amateur yi. ah man de sax mosuma bëre ba mi-temps bi mu dalee bëre ba léegi. non bii laa wax. xam nga tey maanaam moom li mu indi moom la concerné mais man su ma ñëwee li ma indi dama koy teg ci table bi li ma indi man du ma xaar moom mu indi def li mu indi de su ma ñëwee li ma indi laa koy imposer est-ce que dina ko def. dina ko neex wala mu naqari ko. def ba foos. kuñ doxee ginnaaw. kuñ doxee ginnaaw dóor la. mun a wax fii laay tëdd de. voilà. moo moo moo ginnaaw buñ gàddu la rek du noonu la demee nag. te combat yi dama ko waajal de. Hmm. waxuma la waajal ci leneen dama ci entraîné. def ci ay coono. barke alxuraan dama am doole ba xam ne am naa doole ci combat bi. Hmm, waaw dinaa Paul bopp laa xam de. Paul maa gën a nekk xale. yaa Paul ku Paul moo mag suma ma tegee suñ tegee kaay waat ko moo mag. kon yow xam nga Paul parce que boo boo ñemee toog waat ne Paul moo la mag tegoo ko. xam nañ asam koo xamee. mais làmb lañ nekk ñun suñuy bëree ak yow dañuy xam ba xam fi ngay bi ngay tëdd. xam nañ aasam Paul moo ñu mag kon yaramam mënu see daj luñ mënu daj suñu yaram. kon yow su ma wax ji mooy dem nga ba daal ci bu dellusiwaat. Paul daaru ci bu sax maa ko fa daaru ci bu yi muy wàllum wàllum wàllum wàllum wàllum parce que yéen tamit nag bu ñu waxantee dëgg wàllum da ngeen def ambiance wàllum tuus chorégraphie fan ngeen ci tool non lu bees tax lu bees tax lu bees tax ku ko tardé mën ngaa bañ a seetaan combat bi. baliya barke Seydina Mohamed. <laughs> Xeeru Ngor dajji na ci paquet loo xamante ne lu yéeme. teg ko loxo mu ngi fi de mais dajji nañ lu yéeme. waaw léegi li ma bëgg xam mooy sa loxo bi foo ko naa teg. ci kanam gi daa <laughs> ah, laaj li ma jaakaar loolu kanam damay dóor te ko loxo waaw moo tax nga génne teg ko loxo waaw loolu yàgg na depuis 2017 ñu ngi koy baaku mais ba léegi doo dégg keneen ko ko tëgg suñu yëfu bopp la te li ñuy waaj a génneewaat suñu yëfu bopp dootoo dégg keneen ko koy tëgg ñun jël ñu bàkku kenn di ko répété ñun lu ñuy indi suñu yëfu bopp lay doon te ku tardé tey open press bi rek open press bi ku ko tardé rek maanaam mën ngaa bañ a ñëw sax làmb ja waaw kon tey ku mbagoo la woyoon dina neex dina yëngu loolu non day neex yëngu ba pare rupuj hmm. parce que dañoo répété loo xamante ne dañ koo répété répété ko mu mokk neex waaw ah, lu li li yi di wax nee nañ lu mokk lu ne lu mokk lu ne day jaadu waaye lu mokk lu ne day sonal ba waaw lii ne dafa mokk te li ne si xel mi yëpp bu ko yaram bi mënoon ma toj àdduna waaye malheureusement li nekk si bopp bi xel yaram yi mënu voilà wooteel nga tàggatoo waaw dañuy waat waa Ngor rek di waxaat ñëpp nañ la ñu ngi leen di tàllalaat suñuy loxo di saakuwaat ñaan di leen wax ne ñun seen doom xam nga mooy ta mooy tàllalaat ay loxoom rek di wax ne amuñ ñu ñoom xam nga di wax waa gànjaay nañ ma fasaale nañ ma ñaanal suma ma maam yi. mais wax waaw non loolu d'office la loolu c'est déjà fait. waaw di wax ne suma mbokk seedo seedo yi aussi maa leen di woo waa seedo Abbas di leen wax ne dañoo jàppale seen doom xam nga di woo ñëpp ñi nga xamante ne dañuy taxaw xeeru Ngor ku si mel ni le maire de Ngor xam ah, nga Maguette maa ngi koy woo si combat bi di woo euh, le maire sortant muy Amadou Gueye Ati moom aussi infatigable di woo Antou Gueye Samb responsable politique APR fii si Ngor xam di woo ku mel ni baay Boris borom la Ngor timis ak la Ngor yaatu na xam mooy loolu noonu di woo euh, suma ndijaay ba euh, Karim Ndiaye borom black and white di woo Tara borom no fly beach. Maro aussi Youssoufa Meng l'international sénégalais xam nga di woo ñëpp ñi nga xamante ne ay doomu ngor lañ xam di gërëm suma gars yi criminel les premiers cadavres mooy suma gars yi may àndal ñoom Bàcce Xaadim Ndiaye Jibi Diop xam nga juum ay juuma yëpp ambaay xam mais di nuyu suma grand yi toog muy Maoda ak Assane Gueye xam nga di nuyu ñëpp di nuyu sama mbokk yëpp di leen wax ne xam seen doom seen jarbaat seen rakk seen xarit xeeru ngor muy tàllalaat loxoom yee di wax ne dimanche yàggatul waaw di woo tamit suma ñaari joueurs yi muy l'international yi hélas ma dikkee kan moom suma frère la d'enfance ñoo foondoo ñoo daan footballandoo xam nga di woo aussi Jib Jibril Gueye moom tamit international la ñu ngi leen di woo bu baax a baax di woo Ibra Ibra Ba aussi ñu ngi koy woo moom tamit international la ñoom ñëpp ay doomu ngor lañ di leen wax ne doomu ngor moo xewle mu ngi taalal loxoom aussi di wax ñëpp di gërëm benn grand bam te ne dafa baax ci man muy Def Live Mm-hmm. grand def borom làmb diaspora li tax ma koy nuyu nag di ko gërëm c'est c'est pas pour rien mm-hmm. wax dëgg ne yàlla drapeau am laa jël bi passé mais gis naa ne grand boobu yëgeeg damay woo di ma conseiller même en dehors làmb mm-hmm. loolu yëgeeg la ko waa nit nag bu la yëgee mënoo lu dul delloo ko yëgeeg boobu dañ koy ñaanal fi mu nekk yàlla defal ko jàmm sàmm ko du nuyu sama doomu ndey waaw yaa ma gën a xam jiili baa jiili maa lay siyaar yow suma nit nga <laughs> yee maa ngi koy siyaar di la bëgg yow tamit Ouzin waaw di wax ne li nga def ni yombul amaana mënoon na si bañ a fekk parce que defuñu fi dara lu tax ngay ñëw duñu tàllal micro am na ñoo xamante ne def nañ fi tey loo xamante ne ñoom lañ waroon dem dékki micro boo leen rombee ñëw dékk ñun ñi nga xamante ne ay waxu dof la ñuy wax xam nga gërëm rek da xam ne waaw waaw mooy loolu gis nga moo tax jéem a wax waxu dof xam nga mais di wax ne gars yi dañ ñu gën a jàppale dañ ñu gën a jàppale mais di nuyu ko xamante ne nuyoom spécial la muy docteur Babacar Niang borom suma assistance kooku du ma taayu si di ko nuyu duma ma taayu si di ko gërëm mm-hmm. combat bi daf ma defal gisoo mbuus ba la tegu ay blouson la ba mu fees ak ay t-shirt ak ay lacoste lépp daf ma ko may. yaa ngi dégg. Mm-hmm. di ma jox lépp li ma bëgg. saal li may entraîné moom moo ko fay. te su may bëri daf may may xaalis bu baree baree jooyu ma dara ndax moom dama koy sant di ko ñaanal di wax ne li muy yootu yàlla na ko suñu borom defal. Mm-hmm. lépp lu mu fëgg yàlla na yomb si barki Seydina naa xam nga di gërëm waa Ngor gépp di saakuwaat ñaan di ñaan bu baax a baax. gis ngeen mbokk yi noonu la demoon tey euh, ñoo ngi seet si woon ki nga xamante ne mooy Xeweul Ngor wala jàkkaarloo ak ki nga xamante ne mooy Paul bu daaw le cinq dimas arène nationale euh, njiital Gibson production moo fa woote di leen jox dig daje beneen yoon yeneen bër ci Wassare làmb jaa ngeen jëf.